أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة أيها المستمعون الأوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ين سبي أم دي di jàmm دي تولو سفين teewlu Safina FM 98 point 2 ñu ngi fi ñu leen daan nuyoo ci bés bu ne ci Safina FM fii ci Zawiya Cheikh Omar Foutiyou ñu ngi leen di ñaanal yàlla subhaanahu wa di leen ñaanal sutura su sax di leen ziyaar bu baax ci bés bile waaye di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla tawfiixul ilaahi nga xamante ñu ngi woon ci wàllu aj ngir gungente mbokk ujaaj yi fàttalinte ak ñoom waaye di jiital nuyoo ziyaar fadilatu cheikh Thierno Hamidou di ko ñaanal yàlla comme ni ñu koy defee jamono bu ne rek sutura barke yàlla jàppale ko ci yen bi mission bi waaye tamit képp ko xama it yaa ngi fi ci tool bi ci safina saadaat yi ñu ngi lay ñaanal zukuran wa inasa jël ziyaar yi nuyoo yépp jox na mu yéegalal ñu ko ba si alxalifa fadilati cheikh ceerna bachir ayadahu llahu wa ataala baqaahu wa amadda sixatahu yàlla na ko yàlla defal loolu ak mbooleem kilifa yépp ci réew mi di nuyu suñu wayjur alxaajaku manjaani saar di ko ñaanal yàlla tawfiix njaboot gi ñoom ñépp ñu leen di nuyu fàttewuñu kenn yal yàlla defal leen tawféex ziyaar njaboot gi di ñaanal it babaay moom it yàlla defal ko dellu sëg jàmm yàlla defal ko ak dal yàlla dolli ko sutura defal ko ñëpp incha allahu rabbi di nuyu njaboot gi fàttewuñu kenn zukuran wa inasa di leen ñaanal ñoom ñëpp tawféexul ilaahi niki noonu fàttew ñu suñu papa El Hadj Abdoulaye Diop fii si Scat Urbam jaboot gi ñu ngi leen di nuyu moo commandant Mansour ñaa ñu ngi koy ziar suñu yaay yi fi ne Adja Maymuna Diouf Adja Nogay ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ñu jotal ñu ko suñuy jur yi ne ci gox bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu ñu leen tuddee ñoom ñaar rek tudd nañu ñëpp macha allah si seen taxawaay si seen yitte si seen ñaan yal na leen yàlla defal tawféex yàlla eh, sàmmal ñu leen yàggal leen fi lool macha allah eh, ay mag yu yiw lañu tabaarakallah ay mag ñu baax ñu bëgg njaboot te ñu jaboote it yal yàlla sàmmal ñu leen niki noonu suñu mag ñi pap Amadou Sow rajo yokkute pa wargo wan ma ngi ziar bu baax macha allah El Hadj Baye Ngala Dia niki noonu El Hadj du Seck fële ci Liberté ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal El Hadj Yoro Ndiaye fii ci Scat Urbam moom it di kenn si ñun macha allah ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax sutura fàttew ñu it ki nga xamante ne mooy délégué de quartier El Hadji Mamadou Sy di nuyu di nuyu njabootam eh, di nuyu soppe yëpp yi nga xamante ne ñu ngi ci gox bi di ko jox nuyoo mu joxal ñu ko mbokk yëpp waa Scat Urbam ax li ko wër ñun ñaan la defal leen tawféex kon mag ñooñu ci Pape Amadou Sow ñoom ñooñu ñu lim sànq ñoom ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal yàlla tawféex di di wane ne daal ñoom duñu tàyyi mukk di leen ñaanal waaw ndax saa yi ñu déggee rajo bi rek seen bopp lañ ciy gis kon ñoom mag ñooñu ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp nee na fàttewuñu kenn it ku mu mën a doon rek eh, seen xel dem na ci yow bu ko làmmiñ wi tuddulit xol baa nga fa tudd na ko ndax képp ku mas a jaar ci rajo bi rek moo xam ñu ngi tudd sa tur wala tudduñu sa tur waaye yaa ngi teewlu rajo bi rek dontele benn yoon la ñoom mag ñooñu ñu ngi lay ñaanal sutura tawfiix di la ñaanal fa nga nekk it yàlla na ko yàlla barkeel te kon ñaanu mag ñooñu lu am solo la eh, ñoom ñooñu gunge jamono bu ne ñu ngi yor ñaan gi di ñaan eh, yàlla na leen yàlla fayal te fu ñu foo leen gisee rek nuyul ma soppe yi nuyul ma Thierno Hamidou nuyul ma ñumba nuyul ma nuyul ma macha allah duñ si tàyyi waaye di ko boole ak ay ñaan kon nag Pape Amadou Sow ak ñi nga xamante ne ñoo ko féete suuf ñoom ñëpp di ay kilifa. Euh, ñoom daal seen kàddu kàddu ñaan rek la di wax naan fa jazakumullahu xayra wax dëgg yàlla rajo bi daal seen wettal la mu ngi ñaan baat boobu muy wax ci yokkute yàlla na ko yàlla def ci rajo bi waaye nee na jublu ci rajo bi rek de waaye képp koo xam ne yaa ngi déglu rajo bi rek rawatina ñi fiy def ay waxtaan ñi fi yëngatu ku mu mën a doon rek yal na yàlla yokk say mbir si sutura si teraanga ci barke yal na la ko yàlla defal maire Sow ñu ngi koy nuyu di nuyu secrétaire Pape Alioune Fall niki noonu ñu ngi koy ziar bu baax fii si Scat Urbam Abdou Samba ñu ngi koy ziar Chérif Diallo sahibul ibrih maa ngi lay ziar bu baax nga jotal ñu ziare waa xadara bi naaji bi waa hôpital Abbas Ndao rawatina waa réanimation ñu ngi leen di nuyu waa hôpital Philippe Maguilène Senghor ñu ngi leen di ziar bu baax di nuy docteur Diop mama sahaba ñu koy ziar Abdoulaye sar ginté Libas Pape mort yoof ngeen jotal ñu nuyo yeb ba ci Moulay Abdoul Aziz Mbeng El Hadji malik Samb yoof Maris ñu koy ziar bu baax El Hadji malik Mbeng Kaboy ñu koy nuyu imam Ousmane fay mu jotal ñu nuyo al aim wal ulama di fàttew ñu it imam Badou Samb ki nga xamantene kenn la ci ñun ñu koy ziar diko ñaanal tawfiq ni ki noonu imam mohammed ndoy aji bint ndoy ñu koy ziar pap Assane gey diko ñaanal tawfiq momit it fàttewuñu ko benn yoon Alioune Mbengue ak ña muy toogal ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal tawfiixil ilaahi yàlla dool li seen sutura góor naar sek ñu ngi koy nuyu bu baax yoof daagu daan Ibrahima si la Diaz yoof nga paru ñu ngi koy ziar suñ njabootu bopp Kolle Ndiaye ñu ngi lay jox nuyoo bi nga jësal ñu koy njabootu El Hadj Baye Ngale yëpp yal na yàlla defal leen tawfiix fàttewuñu Abdou Sarr Rue sa fàttewuñu Soxna Binta Mbaye Liberté 5 Aminata Sow Pikine ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu soppee yi El Hadj Malick Ndongay Malick Ban ngeen jital ñu nuyoo fépp fu soppe nekk rek ñu ngi koy nuyu di ko jaarale ci yéen. Mountaga Gaye ñoom Marème Ly Astou Ngom Padoa fàttewuñu soxna Ngoone Ngom suñu doom bàyyi fële ci Yoof Rahma An kazalika Ndey Binte Konte yaa Aïcha Diallo ñu ngi koy ziar bu baax niki noonu ñaam ngoom ci Maris soxna may mun a Jaw HLM ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax yëmbal yi ca leen benn yoon ax Moussa Balde di ko massaw si tiis woowu mu am moom it macha allah yal na ko yàlla defal tawféex ci goram bu génn àddina Serigne Diop Ndiaye soppe da baax waa camp Malick Sy sapeur pompier yooyu ñu ngi leen di nuyu Kumba Mbeng fële si cité Fadia Abdoul Aziz Job Ouest Foire mberi Gaye Mariste ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax kon ndëkk mbokk yi déglu Safina FM 98.2 bu ñu dellusee comme ni ko ci ji macha allah yal na leen yàlla fayal ñu ngi gis na ngi émission yi Eh, laaj yu bare bari rot na fi am na yu ñu tontu par téléphone ndax xëj na yëpp yëpp du mën a ñëw ci rajo bi waaye liñ ci xam tontu nañ ko ci ay ujaaj yu ñuy fas yéene dem wala ñu am ñu leen di demal ainsi de suite yooyu yëpp macha allah yeneen i laaj yoo xam ne tamit aju na ci diine yooyu yëpp incha allah yenn yi ñu ci ñëw ci émission yi di ñëw bu sooba yàlla yal na yàlla defal leen tawfiix kon bu ñu fàttalintee ci ni ñu ko waxe woon ci. yi nga war mooy te wax nañ la xeeti ak yi wax nañ la nag ngay waajale yooyu yëpp am na luñ ci fàttalinte góorgóorlu nag ci yi ñuy moyta ndoku lekk-lekk mooy almahzuraat waaw nga moyta ndoku ko bu baax ndax bu la ci laa fidye laa fekk ndax fidye mooy bu fekkente ne danga def loo warul def ñu daan la ndaan moomu ngay fay loolu moo tudd fidya bu dee hët yu nag mooy yàlla defal la fa teraanga ci aj nga aj na nga aj ba nga bëggoon lu mel ni xiraan lu mel ni tamato xeet yooyu nga koy sant yàlla nga defa hediyu kon ñoom bokkuñu fidya mooy lépp loo xamante ne nii daan la bu ñu teg ci sa kaw nga war ko jange loolu mooy fidya waaw yooyu nag yi dafay dellu ci gàtt yi dellu ci woor yi dellu ci leel miskin mooy te ndoku di muur sa bopp yow jaaj bi foofu it am na laaj bu fa ñëwaat buñ ne muur sa bopp euh, kii jigéen la moo tax mu laaj ko ndax kuy musóoru nu ne bul muur sa bopp ndax moom dafa war a tegoo rek la muy armale bu jigéen moom may nañ ko loolu parce que moom ci baaxam dañ koy may mu musóoru maanaa aadaam la ci moom mu musóoru kon moom musóor googu kenn waxu ko ki ñuy wax kay mooy ku yoroon dara di ci di ci kerlu bu fekkoon dafa tàng torop nag nga yor lu mel ni parasol kooku dara amu ci koku dara amu ci wala bagage ya nga yoron nga jëm bërëb benen bërëb yor sa bagage xajna gaddu bi da fay metti nga yenu ko tek ci sa bop koku dara amu ci wala yu mel nonu dara dara amu ci mana dal liñuy beñ dal moy wow, nga mur sa bop waaw mur gi kon gor ñi ñoko mom gor ñi dañuy nonu, seen bop nonu ah, bu aj gi jeexee nag bu la nexé nga sol la nga doon sol mo xam baxna la wala yu ni mel euh, bokk na ci yoyit watu boo xasee ba daal watu moo tax ñu armal na nga watu bu bega da nga bëgg a watu waaw bu da nga bëgg watu armal te watu wulit dara amu ci waaye bàyyi na sunna maanaam yiw wu rëy rëy rëcc na ko dafa sunna yi eh, armal su ko defee nga dagg say we dafa bokk ci sunnay armal nga wat say naanu mooy moustache yeex wala yu ni mel dafa bokk ci sunnay armal lépp luy kawar gu nekk ci yow ah daal nga xamante ne nii war nga ko mën dindi nga dindi ko loolu sunna la waaw su ko defee yooyu ñu ñu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax su ko defee boo xësee ba armal dootoo ko def xasee ba armal dootoo ko def euh, bokk na ci laaj yi tamit am na ci ñoo xamante ne ngay dem ba ci biir sawee xëj na am na lu ci am am na lu ci lu ko laal ba muy bëgg deñ moo xam ci tànk bi la wala ci loxo bi bu boobaa kooku nga dindi ko dara amu ci waaw ah, maanaam dafa am lu la ci laal muy mu mu am lu ci deñ te boo ko bàyyee man na lonk ci la neen indil la loraange kooku danga koy dindi waaw ah, kooku dara amu ci li ñu wax kay mooy nga dem ba biir ne ah, wee wii daal dafa ma bëgg a sonal wee wii daal nangam naa ko dindi boo ko dindee fidya daf lay war mooy loolu ñu doon wax sànq am na lu la war loo war a def kon nag yooyu ñu bàyyi ko si mooy mooy mooy fidya boobu ñu doon wax oor ñetti fan wala leel juróom benn miskin wala nga rendi gàtt parce que da dem ba ci biir nga ne ah sama weewikat naa naa ko dindi waaw naa ko dindi daal waaw wala nga ne ah man daal sama kawar gi dafa bari waaw sama kawar dafa bari naa ko dindi naa watu sikkim la wala yu ni mel bu boobaa loolu fidya boobu ñu doon wax daf lay war parce que dem nga ba ci biir nga bëgg ko dindi waaye nag boo ko bëggee dindi dangay fexe boo laa armal waaye boo xësee ba armal boo ko laalee rek bon kon fidya daf lay war mooy yi ñu wax léegi woor ñetti fan leel juróom benn miskin wala nga rendi gàtt niki si weey moo xam weewu loxo la wala bu tànkal niki noonu it parfum waaw boo ko laalee bu dee njuumte nag kenn waxu ko waaye foofu yi dañuy bëgg yow ujaaj bi euh, góor jigéen euh, boo xësee ba armal ya nga doon yor ci wàllu xeetu parfum euh, da danaa la sax dolli ne la boo ko mënee maanaam sa valise bi nga yor boo xësee bay armal bu pare laal nga ko ba noppi door a tegoo nga sa armal yooyu yëpp lu jëm ci xeet yooyu def ko si suuf yére yi na la sori daal bul ko teg mukk à ta portée nga xam ne boo ne nii rek gestu yem si déedéet na la sori moo xam diw la goo yoroon moo xam parfum boo yoroon bili yére yi fa mu nekk sa suuf nga dugal ko foofu la nga xam ne boo ko laal laal ba sa xel bu ci laa dem nga ne ah lii de dañ ma ko tere moo tax ñu ñu ñu ñu teg ko place bi boo mënee am sax foo ko dugal ci benn genre toile wala yaa xam morceau la lu mu mën a doon nga takk ko ba noppi sax dugal ko suuf yére yi boo demee ba aj gi jeex ci yow nga summeeku bu boobaa nag nga mën nga laal say parfum mën nga luñ lépp luñ la tere woon mën nga ko laal waaw kon nag yooyu ñu bàyyi ci xel parce que nit léeg-léeg da am habitude boo sangoo di nga laal parfum di nga laal benn diw te armal nga loolu tere nañ la ko kon nag loolu boo ko laalee euh, fidya boobu daf lay war wala nga ne am ah, ma ne dama weex xaaral ma laa eh dama weex manuma génn nii de ah dama nàngam ah man nga dafa am xet gu may àndal bu ma laalul nàngam kon fidya daf lay war waaw loolu moo tax boo laa boo laa sol sa armal boo sangoo rek boo dee déodorant ngay laal nga laal ko bu dee parfum nga laal ko mais sa yëre armal bi ar li ngay armale moom parfum du ko laal déodorant du ko laal bul ko parfumer bul ci def dara waaw bul ci def dara ah. su ko defee yooyu noonu lañ ko bëggee ah aywa niki noonu it euh, bul sol lu ñu ñaw maanaam góor moom yooyu dañ koy dañ koy tere bu fekkente ne da nga am njiit laay loo bëgg la masalan tubéy jooy sol kooku it ni ma la waxee rek bés boo demee bay sangu nanga nga ko jëli jenc ko fu sori maanaam dootoo ko gaaw soxla parce que feex yaa ngees sa armal su armal bi jeexee nag si yow nga xam ne summeeku nga laa bu boobaa yooyu mën nga ko utiliser waat lu ñu ñaw armal bi aussi kenn du ko ñaw ah armal bi doo ci ñaw dara amul fii dafa def nangam wala nangam wala foog ma ñaw ko ngir nangam di gis sax léeg-léeg ñoo xamante ne ndeysaan euh, xër rek danga gis ñu ut ay ay ay ay péngu dëng daanaka péngu péngu péngu péngu seen armal maanaam li ñuy li ñuy làmboo ci tege ko ci kaw péngu ko péngu ba mu mel ni genre mbuba déedéet kooku moom soppuñu ko yow taraxlaay rek lañ la wax dee ko dee ko dee ko sàng si sa kaw mais farlu nga war a am nga xam ne buy buy ñooreeku rek nga nga delloowaat ko place am waaye jarul nga jël ay ñeenti pengu juróom di ka di ka kaw ba si suuf pour mu toog mel ni bu ba daanaka loolu boo ko defee day xaw nuru taxawaayu lu ñu ñaw parce que bëgguñu lu ñu ñaw am si lu ñu ñaw mooy doo ñaw dara di tax xale dara kon nag yooyu bul ko def kon bul jël pengu ne naa épingle fii pour mu téye ko parce que day taxaw taxawaayu lu ñu ñaw waaw liñ la may sa la ngay la ngay taraxlaayoo mooy la ngay oddoo daal sa caméra bi ngay yor mën na nekk ndimbal ci yow pour mu téye la ngay la nga la nga la ngay la ngay oddoo mën na nekk ndimbal ci yow waaye bu dee jigéen moom la la muy oddoo am nay takku am na lu ne moom moom amul benn problème góor moom mooy am problème mais gis nga caméra bi ngay takk sa xaalis nekk ci caméra boobu moo lay dimbali si sa wàllu si sa wàllu li ngay li ngay li ngay taraxlaayo ah, li ngay làmboo kon su ko defee nag la ngay teg si kaw nag kooku jarul ngay jël ay péngu nag di ko di ko di ko di ko épingler pour mu téye ko kooku day taxaw taxawaayu ñaw kon nag lu ñu ñaw doo ko sol kon nag ñu bàyyi xel ci loolu bul def it foo nekk ci ci màkka rek nga ubbi sa benn mbagg mi yaram wi dafa war a muuru même bu ngeen nekkee si seen néeg ngeen toog yaram wi dafa war a muuru waaw toujours dafa war a muuru bul ne dafa tàng dama koy dindi tuuti wala maa ngi si néeg bi dama koy dindi déedéet dafa war a muuru toujours jigéen daal la ñu may <coughs> mu sol la muy sol yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax yooyu daal en général moom la ujjaaj yenn yi di euh, jànkuwante gàllankoor bu dee euh, gërëb balaax yooyu xëj na jamono bi demeetul noonu wala sa xel sax du nekk ci nga ne tax ya fay nekk jigama lool naa ci jam nangam naa ci jàpp nangam voilà donc yooyu tere nañ la ko xëj na sa xel sax du si dem waaye yii ngay utiliser quotidiennement lu mel ni parfum yi lu mel ni lelli say wee lu mel ni savon euh, parfumé yi yu mel noonu saabu yi nga xam ne dafa am xet gu neex yooyu lañ lay bañ yooyu kon na na la na la na la sori loola voilà donc ñu bàyyi ci xel niki noonu it doo fa wax it waxi waxi waxi fas sëy doo fasal kenn sëy kenn du la fa fasal sëy doo fa dox ngoro parce que bërëbu jaamu yàlla la dañu ñëw ngir dëddu àddina nañu bàyyi yooyu kon nag bu ñu bu ñu dellu see nag ba aj gi jeex su ko defee nag yooyu yi ciy xew mu mu mu xew si ah voilà donc yiñ la tere noonu boo ko seetee daal ci fit yi am si mën na séddale ci ñeenti mbir yoo xamante ne fit amu si waaw lu mel ni takk sëy eh, am na yoo xamante ne fit yaam moom gàtt lay doon lu mel ni gëléem mooy lu mel ni sëy ci wàllu aj eh, te te summeekuwuloo summeeku bu jëkk bi kooku moom gëléem daf lay daf lay war daan bu sévère lañ lay daan foofule ah voilà baneen bi lu euh, mel ni nga rey fa dara ci pettax yeex wala njanaaw yi genre yooyu euh, lu mel noonu wala boog ñu xayma ko ñu ne la nangam lay jar ci xaalis nga génne nangam loolu la bu dee amoo loo ko loo ko remplacé am na yoo xam ne nag moom or la wala saraxe maanaam fidyam mooy nga or wala saraxe ila axirihi wala nga nga nga nga rey gàtt ah donc euh, yooyu daal moo fay moo fay faral di am kon nag ñu góor góorlu bu baax ci yooyu euh, bu ñu ñëwee nag nga xamante ne ñu ngi lay fàttali toujours yow mii dem baytilaahil xaraam ci ne am na façon ñaan yu baree baree baree bari façon ñaan yu baree baree baree baree bari waaye dama la koy yombalal résumé la ko ci ni ngi ko dégg ah ni nga ko mën a defee te diine nangul la ko te doo si sonn waxoon naa la fi keroog bu fekkee dafa am ñoo àndal dafa am ñoo àndal ñu génne ay ñaan yoo war a def bu ngeen ko mënee defandoo baax na parce que ñi ngay àndal dinañ la orienté macha allah jox la ay ñaan yu baax yoo war a def fa lilahi alhamdu waaye sopp nañ bërëb bu ne nga ñaan fa kon nag lii ma lay bëgg a jox di la ko wax du ne lii lañu fa war a def maanaam nekk loo xam ne lii rek lañu fay def déedéet mën nañ la wax li kaneen wax la la leneen maanaam daal ñaan gi tënkuwul ci ne lii rek la ñuy def kon waxal la nga man la jàppandi ci yow tamit boo ko mënee la ngay ñaanit nga xam lan la mu bañ a doon la daloon waaja rek di wër kaaba gi dégg ah ku mel ni Bachir ba nekk ci booram naan اللهم إني أسألك قلبا خاشعا قلبا خاشعا إني أسألك قلبا خاشعا moom it mu dégg loolu rek naan ah allahuma inni asaluka kalban xaashian kon déformé na baat bi kon mu ngi toppandoo te xamul la muy toppandoo te sax mënu ko tudd xalban xaashian mooy xol bu toroxlu xol bu ragal yàlla xol buy wéttale koo yàlla xal ban xalban xolban muy xol moom nag mu ne au lieu mu ne ban mu ne ban xaasi am bu mooy xaj maa ngi lay ñaan xaj bu ragal xam nga kon li ma la bëgg a wax foofu rek mooy li ngay wax maîtriser ko xam li ngay wax tamit lan la loolu daf ci am solo kon nag façon ñaan yi ñaan moom tënkuwul fen ñaan tënkuwul fen di nga gis ñii bu ñuy war kaaba gi rabbana atina comme ni ko yonent bi waxee bu ngeen ñëwee ba fii euh, si ar ruknul yamani ba si xajarul aswad rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axiri xasanatan wa qina azaba annar rabbana la tuzi qulubana baxda id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma yooyu man nga ko ñaan am na keneen bu ñëwee moom salaatu ala nabi lay def allahuma salli ala sayidina muhammadin il fatihi lima ba mu wala baneen xeetu salaatu wala boog beneen xeetu ñaan lay jël kon wan la foofu ne la ñaan ngi tënkuwul ci ne lii rek lañ fa war a ñaan lii rek déedéet kon dëgg na nga ñaan waaye la ngay ñaan soo ko mënee xam moo gën kon boo àndee giddi mooy wax na la nañ def fii ñaan yi kon su ko defee ne ngeen ànd ci yooyu wax dëgg yàlla dafay baax sopp nañ bu fekkente ne dangay jóge medin di dem Kaaba gi booy demee Médine lu jiitu ma parce que ñu si bari état bu Médine la ñuy def ma tàmbalee foofu nga dem ziyaari rawda yonente bi sallallahu alayhi boo gën a gis ne ujaaji ne ma dem nuyu ji yonente bi effectivement da nga dem ziyaar ko nuyu ko moom sallallahu alayhi wa soo ñëwee ci yonente bi danga koy nuyu da nga koy ñaanal yàlla dolli ko ay maqaama waaw da nga koy ñaanal yàlla dolli ko ay maqaama soo noppee nga ñaan fa say soxla ci def tawassul ci yonente bi maanaa doone yow yonente bi maa ngi lay ñaan nga may ma nangam yonente bi maa ngi lay ñaan nga may ma wér yonente bi maa ngi lay ñaan nangam neel yàlla maa ngi lay ñaan ci barka yonente bi yàlla maa ngi lay ñaan ci maqaama yonente bi yàlla maa ngi lay ñaan ci mbaax gi nga def si sa yonente bi yu demee noonu maanaa daal da nga ñaan sukkandiku ci yonente bi muy tawassul mais doo ko ñaan kon dëgg loolu jaadu na fa kon boo ko ziyaare ba noppi ñaanal ko ñaanal say soxla foofu ci rawdu yonente bi salaa salaam def sukkandikul ci moom ngir yàlla xool ci yonente bi nangul la sa ñaan soo ñëwee nga nuyu kon assalaamu alayka ya allah wa rahmatullahi wa barakaatuhu assalaamu alayka ya nabiyallah السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت, وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابن عند صلاة الإبراهيمية ما دال كو سي فاصون بوبو ولا بنين بو نيت am na ñoo xam ne lii jàppal na si ñoom am na loo xam ne laneen la ñu fay wax ci façon xeeti nuyoo waaye daal yow mu gudd gàtt assalaamu aleyka ya nabiyallahi wa rahmatullahi wa barakaatuhu boo ci yemoon baax na nga nuyu ko ah boo ci mënee nag dolli ay kañ la ci yow mi nga xamante ne yow yaa gën ci mbindeef yi yow mi nga xamante ne yaay sangu ñi yàlla yónni yow mi nga xamante ne ñi yàlla euh, ñëpp bind yow yaay ki ci gën a ragal yàlla yaay seen jiit maa ngi seede ne li la yàlla yónni woon jotal nga ko kóolu tegi ndénkaane yi lépp mat na li la yàlla waxoon daal nga jotal ñu ko jotal nga ko te xeet wi laaye biir nga leen dénk nga leen def nga loo ci man ah, def nga loo mën ci wàllu jihaad ah, ci yoonu yàlla jox nga ko xam na nga waroon taxaw yëpp taxaw nga ko yooyu moom nga koy wax rek moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soo paree nag nga def fa ay salaatu ala nabi yu bari jagleel ko ko wala daal façon ñaan bu mal rek nga def ko hëddiye yonente bi sallallahu alayhi te nag euh, salaatu ala nabi nag yaakaar naa ne ah bu ñu ko seetee bokk na ci yi fa gën nag salaatu ala nabi boo ma nee salaat al fatihi macha allah soo defee nga julli ci moom ci yonente bi sallallahu alayhi wa lu mu xat-xat daal defar rek la man bo pare nga ne yàlla lima def yëpp bu la nexé sax nga ne yàlla ma ngi lay ñaan kep ku fi dugg bés ni tay wala nga ne yow yàlla kep ku fi dugg ci semaine bi wala yow yàlla kep ku fi mësa dugg bépp salatu bu mu def yàlla ma ngi lay ñaan yool yooyee nak maka boole la sama boss bi jël na lépp def ko hëddiye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mom ngay def nit yàlla yi dañuy teug ben formule salaatu ala nabi di wone ne yàlla ma ngi julli ci mom ci limu garab yi ci li mu toxi géej yi ci limu njanaaw yi kon gis nga ci yu mel noonu nga ne def naa lépp ay salaatu jébbal naa ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu nga koy nuyoo nga ñaan te sa soxla waaw yonente bi moom ku sañoon da ngay dëkkaale ak moom ku sañoon moom boo xasee ba toog si raw doom doo fa jóg waaye sóoraaleel ne am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi bëgg a ñëwit pour ñaan su ko defee ñoom it bu ñu kiiwee ña fay nekk di wàllu sécurité bu ñu ne la avancer rek avancer waaw su ko defee nga bañ a xër lool xër goo xam ne dafay indi loraange ah waaw su ko defee parce que béréb la boo xamante ne am nay waxtu yu muy jàppandi pour nga toog am sa temps waaye am nay waxtu yoo xam ne du jàppandi kon diine ak yombal la diine dégg-dégg rek la moo am solo bul xër xër xër ba mu mujjee lora loraange ah su ko defee rek nga ànd ci ax dal te am yaqiin yaakaar ne yonente bi dégg na la te dafay wax ne ku julli ci man benn yoon ma def ci yow fukki yoon nga def fukki ma def téeméer nga def téeméer ma def junne nga julli ci man junne yoon say rab aram ma safara kon si ziyaaratu yonente bi boo paree nga mel ni ku ku ku dox tuuti rek yëngatu yëngatu bu bu yembaay rek yaa ngi ci abu bakrin as sadiq ki nga xamante ne moo gëm yenent bi bi ko kenn gëmul moo ko jox alalam bi ko kenn joxul alal fu ñu ko mas a waxe yonent bi rek mu ne lu mu mas a wax dëgg la moo doon wéttali yonent bi ba muy dem medinatul munawar googu ñu tëdd tey moo doon maanaa daal Aboubacar macha allah su ko defee moom it nga nuyu ko nekk assalaamu aleyka ya aba bakrin sadiq wa rahmatullahi wa barakatuhu assalaamu aleyka ya xalifata rasulallahi wa saanihi fi lhaar jazaka allahu anna wa an alislami walmuslimina xayra aljaza moom it nga nuyu ko defal ko tamit ay salaatu ala nabi wala loo man ci ay istighfar loo man ci ay basmala yaa xam daal la nga fa bëgg nga def ko ko tamit ñaan def tawassul comme na nga defoon dem ci yenente bi soo toppee nga nga danduwaat ab diir yaa ngi ci umar ibnul xataab moom it nga def na nga defoon ci abu bakrin assalaamu alayka ya umarul faruq wa rahmatullahi wa barakatuhu assalaamu alayka ya thani alxulafai rachidin jazaka allahu anna wa an al islami walmuslimina xayra aljaza moom it nga ñaanal ko su ko defee ñoom ñett ñëpp ziyaar nga leen boo noppee foofu nag bëggeen na yaa ngi dem fa nga xamante ne mooy baqiya mooy fa ñu suul daanaka mbooleem jullit yi saxaaba yeex ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñëpp nga dugg fa ñaanal leen boo duggee nag léeg-léeg néew na nga xàmmee kii mooy diw dina am nag ay alaamaat wala nga gis ñenn ñuy garder am fu ñu taxaw léeg-léeg ku moom ñu leen diw moo nekk fii diw moo nekk fii waaye daal même bu loolu jàppandiwul foo taxaw ci baxeex rek ne leen asalaamu aleykum أهل الديار من المؤمنين والمسلمين السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاخخون نسأل الله لنا ولكم العافية لول موي نيانال نغلين دانغلين نيو بو باري نلين ين جوليت يي تد في نينا لين آه تدك xaw ma xamuma kaña la de waaye ñun ñëpp danañ ñëw fekk si leen mooy wa inna insha allahu bikum la laaxiqun comme gëm nga ne kon di nga fa dellu di nga di nga dem barzax ga ñu nekk ñoom kon ngay wax leen ko na leen ne kon ñun comme am nañ occasion fii man leen ñaanal li ñu leen di ñaanal mooy nasalullaha lana wa lakum al afia ñu ngi koy ñaanal suñu bopp waaye di leen ko ñaanal mooy yàlla defal leen jàmm jàmm jooju mooy yàlla jéggal leen yàlla yërëm leen yàlla suturaal leen kon nga ñaanal leen loo fa dolli ci ay ixlaas wala ci ay basmala baax na waaye ñaan googu rek boo ci doy boo ko doyloo woon doy na kon ziyaar nga waa Baxix ñoom ñépp uxut it boo fa demee kazalika noonu rek la même façon boobu ngay ngay def kon nag euh, nga góor góorlu ci loolu bu baax boo fa jógee nag bu ngeen demee màkk nag soo demee ba toll ci xaram bi boo eggee ci xaram bi rek ñu ne xaram baa ngi nii rek bokk na ci lii boo ko manee soo ko mënul it ña ngay àndal dina am yu la wax na la nañ ko wax bokk na ci allahumma haza xaramuka wa amnuka fa xarrimni ala nnaari wa aminni min azabika yowma tabasu ibadak waj'alni min awliyaik wa ahli taatika nga yem foofu rek am na yeneen formule dama andi boobu rek pour nga yem foofu su ko defee allahumma haza xaramuka wa amnuka yàlla lii mooy sa xaram fii de bërëbu bërëbu kóolute la bërëbu dal la bërëbu jàmm la ku fi nekk rek am nga jàmm am nga sécurité kon nag allahumma fa xarrim nii ala naari wa aminni min azabika yowma tabasu ibadik wajal nii min awliyaika wa ahli taatik yàlla daal maa ngi lay ñaan sama jëmm ji doye ji yàlla nag nga ko araamal safara yow yàlla te yàlla nag mu musal ni nga musale bërëb bii ni nga fi def defi sécurité yàlla na nga musal noonu sama jëmm jii si mbugalu bés penc ëllëg yàlla na nu ko yàlla defal defal leen ko te yow yàlla maa ngi lay ñaanit nga boole ma si say gaay yi nga xamante ne ah ñoom day si sa yoonu njub rek la ñu tegu ba nga gërëm leen yàlla nga ma boole ko kon boo dekkee ci xaram bi rek man nga wax formule bi wala baneen bu ni mel wala ña ngay àndal buñ la jox rek nga doyloo ko kon li ma la wax sànq rek du ne lii rek lañ fa war a wax déedéet da nga gis kanen lanen lay jël kanen lanen lay jël kon dañ ko andi rek comme gungé la ngén su ko défé ñi enregistré wala ñi noté buñ ko noté man ko jël inshallah bu féké nag dem nga nag ba sa bëtt tégué kaaba gi nag xam nga da nga néwon haram ba ñu né la ah egsi nañ si haram bi lég lég bo fa exé amna fo xamné bo fa tollo do gisagul kaaba gi ñu yaa ngi si xaram bi de yaa ngi si xaram bi de ngay dox nga naan waaw ana kaaba gi nga gis ku masul woon def di séentu naan waaw ana moom an allahu akbar ku ne di séentu su ko defee sa bët bu ne jàkk ci kaaba gi rek nga ne allahumma زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعزمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا جدنا لول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام جعل نيان يو أم صلو تبوكنا يي أم صلو تي أدنا الآخرة موي سؤال المغفرة ñaan am njéggal kon nag boo waxee yooyu nga ñaan am njéggal kon nag yal na nu yàlla defal taw tawfiix waxtu wi ñuy nodde jot na su ko defee bu ñu dellu see rek àndax yéen ci bërëb bu ne lañ fay wax tara al badro alayna El Hadj Doudou Seck macha allah di nuyu waa Liberté ñëpp soxna Binta Mbaye yal na yàlla defal leen sutura fàttewu ñu waa Jëppal waa Castor fàttewu ñu waa Ngor waa Okam soppe yi fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di nuyu waa Dalifor ñu ngi leen di ziar bu baax macha allah Pikine yi aussi ñu ngi leen di nuyu parcelle soppe fa nek yeb di tewlu Safina FM ñu ngi leen di déglu bu leen bàyyi xel ci seen ñaan yéex jamono bu ne rek wax dëgg yàlla yal yàlla fayal ñu leen wax dëgg yàlla ñu leen fay yal yàlla defal leen tawfiix ñu ci oto yi tamit macha allah di déglu ñu ngi leen di nuyu bu baax yal yàlla defal leen tawfiix dolli seen sutura. ñu nekk ci yoonu dem yal na leen yàlla teg si yoonu jàmm ñooy liggéey yàlla barkeelal leen ba ñu am loo xamante ne nii moom la ñuy wut ngir sutura ngir teraanga yal na leen ko yàlla defal fu waayu nekk rek di yëngatu ci géej gee si joor gi ñëpp yal na yàlla defal ñëpp tawféex incha allah kon su ko defee seen émission xam sa diine toujours ci aj gi fàttali nañ la ci laytaayul waxtaan wi yenn ci yiñ la tere léegi nag ñu ngi lay wax yenn ci yi nga xamante ne mën nga ko jël ngàndaayoo ko comme mu nekk ay ñaan wala it yi ngeen xam wala ñu ngeen àndal bu ñu leen accompagner su ko defee yooyu mën ngeen ko dimbandiku kon wax naa la booy ziyaar yenent bi booy ziyaar Abu Bakrin booy ziyaar Omar ibn Khattab nga ziyaar leen ñaanal leen waaye tamit def tawassul mooy nga ñaan fa say soxla jaarale ko ci ñoom ci seen barke lo incha allah loolu mooy tawassul Euh, waa Baxeex boo fa demee nga ñaanal leen foo tugg taxaw rek loola baax na ñaanal leen ñoom ñëpp incha allahu rabbi boo fa bàyyeekoo nag yaa ngi jëm makatal mukaram soo egsee si xaram bi rek fa lañ daanale woon léegi la ngay wax allahuma zid hadha al bayta tashrifan wa taziman allahuma hadha amnuka wa xaramuka yooyu boo tegee sa bët nag ci kaaba gi nga ne allahuma zid hadha al bayta tashrifan wa taziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sharafahu ndaxte foofu bëri bu ñaan la bëri bu kóolute la bëri bu dal la nga ñaan fa yàlla subhanahu wa taala yu demee noonu ah donc ñaan fa daal am njéggal jërëjëf ñaan fa sutura ngir yàlla defal la ko defal ko jullit yëpp su ko defee nag booy dugg nag ñu ne yaa ngi dugg ci jàkk bu dee même Medine jàkk yonent bi wala jàkk joo mën a nekk rek booy dugg ci xaram bi nga jiital sa tànku ndeyjoor ne allahumma axfir lii zunubi waftax lii abwaaba rahmatik مبامكو اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك يلا يلا نغ ما جيغل سماي بكار تو اوبيل ما سبونتي يرمند ياو يلا يلا نغ ما جيغل سماي بكار تو اوبيل ما سبونتي يرم سو جولي با نوبي سو فا توغي توك بان فاي توك باي ген tànku càmmeñ mooy jiitu nga ne allahuma iftah li abwaaba fadlik allahuma iftah li abwaaba fadlik yàlla yàlla nag ma ubbil sa bunti ngëneel parce que kat yaa ngi delluwaat ci àddina ngir yëngatu ji bunti ngëneel yi ngay soxla foofu li boo pa noppee ci loolu lu mel ni booy dem safa wax naa la boo egsee ci eh, ruknul yamaani danañ la ko wan ña ngay àndal mooy eh, koñ bi jiitu xajarul aswad digganteem foofu ax bunt bi su ko defee diggante boobu nga naan rabbana atina fi dunia xasanatan wala boog salaatu ala bi boo man nga di ko fa def mel ni salaatul fatiha moom baax na fa lool su ko defee nga ñaan soo noppee foofa nga jóge fa dem safax marwa war ko dox muy ñaari doj nga xam ne montagne yooyu boo seetee ni ñu bindoo sax dañu dañu séq kaaba gi foo ci taxaw rek kaaba gi day mel ni daf la fiite suuf parce que montagne yooyu loolu dafa nekk ci kaw suñu maam haajara ba mu koy dox maam Ismaïl mu ngi ci kaaba gi mu teg ci suuf mu yéeg si montagne yi di séentu bu dawee si xurwale wàcc yéegaat beneen xur wi noonu mooy jaabante boobu di fàttaliku yàlla loolu mu ñu defal ci njabooti maam Ibrahim sooy tàmbali safaa ngay tàmbali juróom-ñaari war nga koy def juróom-ñaari nag masalan safaa ngay tàmbali boo déparé safaa dox dox dox ba marwa mooy am nga benn wër nga bàyyeekoo marwa doxaat dellu sewaat safaa kon am nga benn dem benn dellusi kon am nga ñaari wër du ne dem bi dellusi bi mooy ñaa mooy benn de boo ko defee moom boo moytulee di <laughs> boolaa ñibbi di nga kawati kon benn dem bi ben wër ngi noonu nga dellusi muy ñaar noonu lañ koy defee ba juróom-ñaar kon safaa ngay tàmbalee marwa ngay jeexale juróom-ñaari wër yi parce que dem bu ne benn bu wër lay tombe waaye du ne demax dellusi muy wër parce que lu mel lu mat 500 euh, euh, mètres ah 500 euh, mètres jëm 600 mètres boo ko naree def de aller retour sept fois ah bu boobaa macha allah kon nag yooyu ñu bàyyi ci xel ah voilà su ko defee. soo taxawee safaa nga ne inna sofa war marwata inna sofa wal marwata mooy doj wii di safa doj wii di marwa bu njëkk ay ay xërëm a fa newoon waaye léegi duy xërëm kon nag nga ne ñaari doj yi daal inna safa inna safa wal marwa ñaari doj yi di safa marwa ah. nga ne min sha'airillah dafa bokk ci màndargay aj dafa bokk ci màndargay aj kon nag fa man xajjal bayta aw atamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima ku fi ñëw def fi li nga fay def muy wër bi nuroowuloo ak ña ka doon def ci mbokkaale yow kenn du la yedd la ngay def lu baax la min la nga abda abda'u bima bada allah bihi ma ngi tambale dal sile yalla tambale mana aya ba dafa wax inna safa wal marwata comme ni ma jange léegi su ko defee nga wax ko boko manulit nga yene rek na yaangi faskene ki bo kii boo jàkkaarloo boo da ngay kaaba gi nga ñaan dox dem ba marwa def fa wax fa lola taxawat ñaan non nga kay japp jàppoo su ko defee boo kaaba gi bu la man nga لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد wa lahu alhamdu wa huwa ala لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده بفرنجا نعم soo ko mënul yooyu yëpp nag boo jàkkaarloo kaaba gi daal laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin xadir boo yemee foofu baax na nga ñaan ku dem doxi boo defaatee ba fële noonu ngay defaat laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nga ñaan toujours yaa ngi ñaan jàkkaarloo kaaba gi ñaan fa sa soxla noonu nga koy jàppoo ba juróom ñaari mat boo paree nga ñaan après dem yeewee ko ah kon yooyu ñu bàyyi ci xel ci boo dugg ci xaram bi boo tegee sa bët ci kaaba gi muy néeg bu tedd boobu yàlla bu mu umpa kenn insha allah rabbi yàlla bu mu umpa kenn insha allah safax mar wa kazalika niki noonu noonu nga fay def waaw kon nag arafat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax ne la gën daal ca arafat mooy ma li ma doon wax man max yonent yëpp ñu fi jiitu woon ñu ne ko loolu mooy lan ya rasulullah mu ne laa ilaha illa allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غريك واحد باري اه يينن خيتي نيان ولا الذكر يل لا فجوخ سي استغفار سي صلاه على النبي تي لا اله الا الله تي فاسما بوني رك مانا دال ساخو نيان لا واو كون دك nga après man nga ñaan say soxla yo bëgg ñaanal kep ko xamantene yo bënt la ñaan ñaanal mbokk julit yëpp non tamit nga koy def ci rawdu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ñëpp bu leen fàtte dara yonent bi saa salaam nee na booy ñaan yàlla xattaa xorom xorom si ngay xorome ñaan ko xattaa sukkar si ngay sukkar si attaaye ñaan ko lan la bëggoo bëgg a foofu muy bul bàyyi dara ndax yàlla jeexalul dara te soxlaaw ko jaam yi rek la koy jox kon na nga ñaan na nga ñaan bëri bu ñaan la kon nag euh, su ko defee ku fëgg rek incha allah ñu ubbi la ci 88 628 10 95 mooy guumu jokkoo gi incha allah 88 628 10 95 su ko defee ñu ngi ci aj ah ñu ngi doon gunge ujaaji fu ne lan lañ fa war a fàttalinte lan lañ fay wax yooyu yëpp su ko defee ngir doom aadama yi mën nekk loolu yóbbal ci ñoom ko defee ku fëgg rek incha allah ñu ubbi la ci 88 628 10 95 yan yàlla defal tawféex kon nag su ko defee nga xam ne mbokk yi aj daal dafa nekk bërëb bu jaamu yàlla boo xamante ne occasion bi la yàlla may da nga naan ndax yàlla dina ma ko mayaat ah man de yàlla baaxe na ma lii daal ñëpp moom la ñu bëgg man yàlla boole ma ci ñi nga xamante ne nii dañuy dem baytullahil xaraam su ko defee nga ne ah kon nag lii daal naa ci góorgóorlu bu baax naa ko def ni ko yàlla bëggee su ko defee doo doo yàkkamti nga àndax muñ waxoon naa la ko ca ndénkaane ya, na nga war a mel boolaa dem nga àndax muñ nga ànd ax dal ndax muñ àndax dal eh, ndax ña fay dajeel say say say mbokk lañu su ko defee ngeen beñ di lorante waaw ku si nekk rek am yërmande si sa si sa maroom ndax yooyu dañu koy soxla ci aj waaw ku nekk am yërmande si sa maroom ndax loolu dañu koy soxla si aj waaw kenn bañ a bañ a a bañ a lor kenn waaw ku ne rek am yërmande si sa mbokk mi nga xamante ne moom nga nekkal waaw kon nag su ko defee aj mbokk yi eh, jëfewul waaw jëfewul na nga waajal sa bopp ba nga xamante ne boo ci duggee rek eh, li nga bëgg yàlla dina la ko defal waaw yooyu nag li ci jiitu waxoon naa la ko mooy na nga xam sa ponki aj waaw na nga xam sa ponki aj na nga xam faratay bu baax na nga mel ni lii ngay def eh, dootoo am occasion pour def ko nga teewlu ko bu baax ci anam yépp ndax loolu boo ko teewloo rekk yàlla mën na la jàppale bu baax kon nag eh, góorgóorlu bu baax waajtaay ndax ku fëgga rek incha allah ñu ubbi la ci 88 628 10 95 88 628 10 95 mooy ku mu jokkoo incha allah ñu ngi ci fàttalinte aj ax yi ci aju ci ñaan yeex bërëb bu ne yooyu yëpp su ko defee ñaanal ujjaaji yàlla yóbbu leen ci jàmm salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. El Hadj Malick. ñu ngi lay bu baax. ñu ngi lay delloo ziar El Hadj Malick. sant yàlla waaw ñu ngi si aj gi de. ah waaw noonu la de di fàttali rek. waaw jërëjëf jërëjëf. surtout suñu mbokku jigéen ñi. wallaay jërëjëf. dañoo bëgg a dem baytul xaraam. waaye xamuñu sax. da ngay gis koo xam day toog ba dernier moment. ñëw si oustaz naan ko dañoo bëgg a xam. est-ce que ñuy defee aj yeeg. ñeen ñi xoolal loolu. est-ce que est-ce que est-ce que. macha allah El Hadj Malick kon gis nga dafa dafa ñaax euh, ñëpp. góor jigéen pour que ñu bañ a toog ba nga xamante ne dem jot na nga naan nàngam kon mooy ni ñu tàmbalee woon rek nga jàng aj bu baax waaw loolu dalay lay dimbali nga xam ne safara tey yi ko war a xam aj gi lal na laaj xam ban aj ngay jël kon daal moom dafa ñaaxe ci ñu teel a teewlu bu baax te waxoon naa la fi ne la kuy topp safina incha allah eh, lu bare bare di nga ko am si aj gi te eh, fii ci na moom it incha allah danañ fi jàngale aj di fàttali ujjaaj yi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. wa yaa imaam. ñu ngi lay ziar bu baax Adja. maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax. macha allah jàngale bi am na solo. jërëjëf jërëjëfati. kontaan nañ trop. jërëjëf macha allah. sax la ñuy demul demul woon am. waaw. ñu demoon tamit bëgg a dellu sama genre bi moom su ma nekkee nii. incha allah <laughs> bu ma ceeb jàpp damay ñëw rek ay bagages am da ko foog nga yóbbaale. macha allah incha allah. <laughs> yàlla ñu fa yàlla delloo. allahumma amiin amiin amiin amiin. ñu koy jàngalee moom wax dëgg yàlla am na solo. jërëjëfati jërëjëf jërëjëf. yàlla ñu la yàlla fayal. allahumma amiin yaa rabbi amiin waay. ñu ngi ziar ziar ziar na. macha allah mu ngi lay dégg mu ngi lay dégg. ziar ñu dem. macha allah jërëjëf. di sàkk bu ñu demee ñaan. incha allah kenn du fàtte sa bopp maa ngi ziar sëñ bi bu baax ak njaboot gi incha allah jërëjëf sama sama Mohamed ma ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar bàyyi ma kenn wallaay wallaay jërëjëf naaf jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah ajaaraaki macha allah dëkkandoo yëpp duggaale ci biir ñu ngi leen di nuyu bu baax eh, yan na yàlla defal leen tawfiix yàlla dolli seen sutura bu baax a baax a baax jërëjëf daaf yal na yàlla fay ci 88 628 10 95 88 628 10 95 yal na yàlla defal ñu tawfiix mooy gumu jokkoo gi allo salaamaaleykum. wa barakaatuhu. El Hadj Malick ah jërëjëf jërëjëf. jërëjëf El Hadj Malick aha bismillah. Ah. defe naa moom ku ko topp. jërëjëf. baag bi commencé. jërëjëf di nga dem di nga def aju mbaru. macha allah. <laughs> di nga def aju mbaru. wallaay jërëjëf. ak bu yàlla nangu. macha allah jërëjëf. depuis tàmbalee ba léegi. Mhm, mhm. boo demee ñu koy jàngale. wallaay jërëjëf wallaay macha allah ak Aziz Fall. ñoom ñëpp macha allah. ñu ngi koy jàngale. ma ci la sant. jërëjëf jërëjëf yow tam kenn duñu. jërëjëf jërëjëf ñu jërëjëf jërëjëf sama classe bi ko xamul bu ñu day yomb. jërëjëf jërëjëf dafa fekk benn oustaz bu mel ne élagement bi rek boo ñëwee jox ko ñaar téeméer rek. <laughs> naka ay ca mu la koy cel cel rek. est-ce que est-ce que te du la ko tegal ci yoon. jërëjëf jërëjëf jërëjëf yal nañu yàlla dolli. allahumma amiin yaa rabbi jéggalu bu baax. jërëjëf élage jërëjëf jërëjëf. yàlla kenn gënu la. walaay yow ko baax nga ko baax nga ko baax. ñu leen di ñaanal rek. allahumma amiin jërëjëf. Safina yal na ko yàlla def Safina TV ñu leen di. incha allah incha allah incha allah. sallallahu alayhi wa sallam. sama seex nag ñu ngi leen di nuyu. waaw ñu ngi koy ziar bu baax ziaral ñu ko yéen ñaan nag nee na incha allahu rabi incha allah nee àll bi rek waaye xel nañu ci yéen ñu ne suñu xel nga ci moom wax ko loolu incha allah waaw nee na nag ñu teewul lépp dina baax ñu ngi koy ñaanal kilifa yaa ngi koy ma déggee rek leen dégg ngeen jërëjëf jërëjëf jërëjëf colère bi ñu seqoo ba léegi macha allah ñu koy sàmm wallaay jërëjëf jërëjëf boo leen ñu déggoo boo leen déggoo kóolóore bi ñu ngi koy. sàmm jërëjëf jërëjëf El Hadj Malick jërëjëf soppe yëpp nag ñu ngi lay nuyu di ko teg sama loxo di la jox. macha allah ñoom ñëpp ñu ngi leen koy am kontaan ci am mbégte. jërëjëf jërëjëf di ñaanal recrute yal na yàlla mm, guddal kanam. macha allah amiin amiin amiin amiin amiin amiin. defe naa yal na yàlla yokk ko ba mu yëg ko. amiin yaa rabbi allahumma amiin sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf elage malik Malick macha allah kooku mooy elage malik Malick na yàlla defal ñu ko taw fii moom it ñëpp a ngi koy ñaanal jamono bu ne rek góor gi Amadou Sow day wax ay ñaan kàddu yu rafet ci moom moom it mu ngi coordonné di di ràbbal ndongo liggéey ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax yàlla defal leen taw fii ñoom soppe yëpp macha allah góor jigéen fu ngeen mën a nekk rek. ñu ngi leen di jox suñu buumu xol di feddali suñu kóllëre ak yéen macha allah di leen ñaanal yàlla yàlla dolli seen sutura. dolli seen teraanga dolli seen man-man waaye may leen it jot tal fekk gu ngeen di man di teewlu Safina FM ndax Safina émission boo ci déglu rek macha allahu rabbi da nga fay gis sa bopp maanaa da nga fay gis njariñ kon nag yàlla na leen yàlla fayal ñoom ñoo ñu fiy def ay waxtaan di ay borom xam-xam yoo xamante ne de haut niveau sax macha allah yal na yàlla dolli seen sutura bu baax. ci 88 628 10 95 mooy guumu jokkoo gi su ko defee kon. góorgóorlu ci aj gi bu baax moom la El Hadji Malick duggaat di feddali nafar ko bu baax allo salaamaaleykum aleykum salaam rahmatullah wa barakaatuhu El Hadj Doudou <laughs> maa koy sëg sëg sëg barkala macha allah sëg jërëjëf sëg eh, yëf yi taxaw dina am amul yoon jërëjëf sëg jërëjëf kontaan na jërëjëf sëg yàlla na yàlla kontaan jërëjëf sëg koy déglu rek wallaay wallaay suñu am solo jërëjëf sëg jërëjëf ñëpp ci wax jërëjëf sëg sant ñëpp jërëjëf sëg jërëjëf wax rek yàlla wallaay sëg jërëjëf barkala macha allah ba yàlla la fay amiin sëg sëg yàlla tudd sa fat allahumma amiin sëg amiin amiin sëg jërëjëf jërëjëf jaare alaaji Mali mu ngi lay dégg mu ngi lay dégg ñu ngi ko waxee kenn gënu ko. kenn gënu ko ma ma woote ma. ah xoolal loolu rek ku baax la ndeysaan ku baax la. sàmm ko aar ko wallahi wallahi wallahi ndonga liggéey wona alaaji malik te ndonga liggéey bon ndonga liggéey na alaaji malik wallahi dëgg la eskay eskay masha allah jërëjëf wallahi jërëjëf faagey faagey masha allah masha allah collaborateur la salih wallahi wallahi jërëjëf wallahi amin ya rabbi waay amin waay jërëjëf imam jërëjëf moom ko mën ko jële moom jërëjëf jërëjëf moom min ko yàlla tax rek amin jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ niil ma waa liberté ñëpp inshallah jërëjëf El Hadj Doudou Seck mag mu baax maanaam jërëjëf mag ñi daal macha allah euh, ñu ku dugg rek dugal nga ñu ci des ñëpp ci mag ñi ñoom kenn amul seen fay ñu ngi ñaan ñu ngi encouragé yëpp seen mbaax la rek wallaay waaye manoon nañ toog rek di déglu waaw waaye ñu ngi oote di ñaan jërëjeen jëf allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. wa ah, ñu ngi lay ziar. Pape Mor ñu ngi allo salaamaaleykum bisimilah. waaw ñu delloo ziar bu baax a baax fay. di rafetlu waxtaan bi. jërëjëf jërëjëf. xamante na solo. jërëjëfati jërëjëf jërëjëf. di ziar ñu di ngi la koy delloo. waaw waaw maa ngi leen di. ñoom ñëpp a ngi la koy delloo macha allah. ñaanal ñëpp jàmm. jërëjëf fay jërëjëf. Mm-hmm. waaw. jërëjëf jërëjëf ñu ngi la koy delloo bu baax a baax kilifa gi laa doon waxal waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf amin yaa rabbi fay di leen baal ak di leen baalu ak yal nañu di ñaanal suñu ujaaj yi yàlla na leen yàlla yóbbu amiin fay amiin waay amiin amiin amiin amiin waxtaan wu am na solo lool jërëjëfati jërëjëf jërëjëf ñu bañ a tënku seen ndigali bopp rek ah. tënku ndigal li yàlla sant li yàlla santaane jërëjëf waay ko yàlla sant foofu par saafam ak suñu est-ce que est-ce que est-ce na nga def farata na nga allah farata macha allah macha allah déedéet déedéet wallaay jërëjëf wallaay fay jërëjëf ñaanal leen yàlla yàlla amin waay amin amin ya rabbi amin jërëjëf waaw noonu la yaa ngi si liggéey waaye sa xel yëpp a ngi ci rajo bi xam nga lii mbaax la joxe it rajo bi yitte la jërëjëf Pape Mor macha allah yal na yàlla fayal yàlla taxawu la bu baax gis nga macha allah euh, soppe yi daal amuñu seen fay wax dëgg yàlla euh, yal na yéen yàlla defal sutura bu baax dolli seen teraanga fa ngeen nekk rek ya góor gi di wax rajo yokkute fu ngeen mën a nekk rek yàlla ngeen yokku ba yëkk incha allah ci barke mag ñi yal na leen ko yàlla defal allo salaamaaleykum allo. آه، دفع دين دين لسات حمنا إن شاء الله 88-628-10-95 سوپيب نيوم لين دينيو ما شاء الله بايو نيو كان واحد دقيال آه، نيو تدو نيو تدو الخل ما نيسي نيب واحد دقيال خل بيهين مو لين تدو ما شاء الله حمنا نيو نيو عند أحنيون آه، يان لين يالا دفع التوفيق بباخ بافنين المانا نكرك واحد دقيال بيك نيو لول تسين نياني نيو كي يك نيو نيو يان يالا دف سنيو نياني نيو نيو يكو 88-628-10-95 سكو دفع كون Euh, noonu ci ci aj gi gunge ujaaj yi la ko defee kon bu fekkente ne amul it kenn ku ne ci ligne bi rek dañuy profité waxtu yi julli ndax góor gi moom macha allah euh, da koy bàyyi xel ak ñeneen ak ñeneen aussi yan leen yàlla fay euh, su ko defee fajar gi ñu ngi si 5 heures 46 kon nag 5 heures et daanaka salaatu jot na buñ demee ba 5 cinq quarante 46 ñu taxawal julli 5 heures. 31 ñu salatou 5 h 46 Nous taxawal julli tisbaar gi 2 h et quart 17 h timis 19 h 51 mana 8 h moins une minute geewe 20 h 51 kon su ko defee waxtu yaa ngi fajar gi mu ngi ci 5 h et demi nga xamné salatu 5 h 45 46 ñu taxawal julli cinq heures et demi cinq quarante cinq bu dee ci tis takkusaan gi dix-sept heures tisbaar gi deux heures et timis gi dix-neuf heures cinquante et une dix-neuf heures cinquante et gi kazalika vingt heures cinquante et kon waxtu julli yi mu ngi noonu góor gi amadu Sow yal yàlla dolli sa tawfiix dolli sa sutura ñu ngi leen di ñaanal yéen mag ñi bu baax yal na yàlla yàggal seen fan yal na yàlla dolli seen sutura taxawu leen taxawu seen njaboot ñaan yi ngeen di ñaanal gunge gi ngeen di gunge rajo bi ak ña say déglu rajo bi yàlla na leen yàlla taxawoo noonu zahiratan wa baatina kon nag soppe yi yéen it fu ngeen mën a nekk woote ngeen wootewu leen xam nañ ne yéen a ngi àndandoo ak ñun yàlla na yàlla defar seeni mbir te defar suñuy mbir yàlla na yàlla dolli seen sutura yal na yàlla dolli seen sutura lépp loo xam ne soxla nañ ko ci wàllu diini yal nu ko yàlla jàppandil te saxal ñu ci diini te lu ñu ci def mu néew mu bari yal nu ko yàlla nangul nangul leen ko kon nag di leen dox daje ba aljuma bi di ñëw incha allahu rabbi di ziyaar bu baax a baax mbokk yépp di leen ñaanal tawfiix kon nag di nuyu Euh, ñi ci woon ci wàllu xarale gi ñoom ñëpp it yàlla dolli seen sutura def seen jàppandal bu baax a baax a baax a baax ci liggéey bi rafet na kon nag di leen dox daje ba aljuma bi di ñëw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa